zone industrielle bu Sandiara bokk ci arrondissement bu Sessène département bu Mbour région bu Thiès askan ba fa yeewoo nag daal nañu dellu si ci jafe-jafe yi nga xamante ni jamono jilee ñu ngi koy dundoo rawatina nag ci atum 2020 bi bu ñu sukkandikoo ci askan ba yeewoo fa fecca diwaanu Sandiara yooyee jafe-jafe nag zone industrielle bu Sandiara daal di koy am lu xel mën a nangu la nag ndaxte dëkk bi dafay màgg ñii di askan bi nag di yokk te jamono ji nag Sandiara nekkatul dëkk bu ndaw Sandiara euh, Séeréer ñeenti quartier la la nekk quartier Ndiou Ndour ak quartier Sopa ak quartier Sande euh, Sandaga ak quartier Escale bi maanaam jéggi waaw quartier Escale. Euh, population bi ci Sandiara Séeréer ah population bi quatre mille quatre mille cent quatre mille cent ci jafe-jafe yi ñuy dund tey. jongoma euh, war nañ cee mën a wax tuuti ndax lu tax moo di lépp lu ne ci dëkk bu umpale umpale bu ñu ci lu bari ndax jafe-jafe surtout nag si ren ci atub ren bi euh, normal mbéy mbi dox na mbéy na mais am na ay gàllankoor yu bari yu fa am na nga fi yoo ak ñun ñu nga ko ci ak ñun waaw gàllankoor yi nag maanaam jafe-jafe moo di wax dëgg euh, mbéy mi def dafa dox ba digg mais taxawaayu nawet bi ak nu nawet bi bindoo waaw ak tax taxawaayu jamono bi maanaam ñoom ñëpp daal kenn daal xawul tax lu am sooxe daal moom la ak yàq-yàqu ndox mi it normalement yàq na ci lu bari waaw bon jafe-jafe bi wax dëgg loolu yëpp am na ci biir. Sandiara ñun fu ñu problème jafe-jafe yi lu ma la ci mbañ njëkk a wax ci problème mbéy mi dañu am jafe-jafe. non seulement Sandiara extension bi dafa yaatu léegi boo tool yu ñu doon béy ñu ñu fi cosaan bi yëpp amatuñu suuf pour béy deuxièmement li ngay jot a béy jur yi dañ koy yàq rawatina mbaam xuux yi kon autorités yi dañuy ñaan ci ñu gën a taxaw ci affaire boobu commencement boobu loolu laa mën a gëm kii. am nga dëkk suy mag euh, yenn extension yi dafa war a mag. surtout extension ci ginnaaw dëkk bi amagul courant bu doy amagul ndox mu doy te ñooñu ñëpp c'est des habitants yoo xam ne dañu war a am ndox am courant. Euh, jafe-jafe yi ci wàllu mbéy la surtout berger yi dañu yàqal bu baax a baax a baax te soo waxee ñu indi lay problème génn la ay jaasi wala ay fetel te naka jekk jur mooy dab tool mais tool jamais mu dab jur. dañuy jooytoo jooytu ba xamatuñu fu ñu lañu fu ñu war a dem daal pour réglé affaire yi suñ jaaree gendarmerie même taxul mu mu régler te le même rythme kon continue loolu nag doon suñu problème boo xamante ni vraiment dañoo jaaxle kay dañoo jaaxle bu baax a baax foofa. waaw xam nga euh, national dafa bari ay dafa bari ay kii dafa bari dafa bari ay oto. te population bi aussi dafa kii noonu tali bi di kii euh, ak jàll-jàll nit yi man na indi accident yi bon nag aussi dañuy ñaan euh, autorités yi ñu gën a taxawal homme de loi yi ñuy man ñu gën a kii ñu gën a góor côté boobu parce que loolu rek moo man ne def nañu ay doodaan peut-être doodaan yi mën naa ñàkk doy mais ñu amoon des des ay ay gendarme yuy gën a taxaw foofu pour jàppale population bi aussi yooyu day dox. waa tali yi tali yi sax buñ leen yokkoon moo gën. mais hôpital bi pour bu ko gouvernement bi mënoon a yokk doole bu baax parce que boo fa demee cin li fu seen doole yem rek la ñu mën a yem ak yow tuuti ñu ne la da nga jàll caajaay jàll caajaay ñu ne la da nga jàll mbuur te li ñu def caajaay docteur yi nekk caajaay mais seen morom ñoo nekk ca Sandiara docteur yi nekk Mbuur seen morom ñoo nekk Sandiara Mbuur ñoo nekk Sandiara kon bu ñu fa ni ñu def Mbuur def ko Caajaay bu ñu ko defoon Sandiara normal yaakaar naa ca ca ci nun daal ci nun ñu commune Sandiara bien vrai sareet jara jakarta ak euh, kii camion yi comme ni ko sama jerbaat ji waxee am na doo daan mais ça sufi suffit pas doyut ba tax na daal vraiment jafe-jafe yi daal moom foofu la ñu ëppee sax surtout ak mbéy mi daal. autorité li leen di sant mooy ñu taxaw ci bu baax a baax dimbale béykat yi ci wàllu euh, jur ji waaye la divagation des animaux dans les champs vraiment c'est jéggi na dayoo daal foofu daal moo ñu gën a euh, kii daal ak accident yi. ndox ak courant de am na de waaye du doyul xam nga lu tax man la doyul dafa am ay secteurs yu ne ci ginnaaw. dafa laaj ñu am ndox dafa laaj ñu am courant te secteur yooyu dañu xaw yaatu normal bu ma la waxee ne ñeenti koñi Sandiara yëpp ba boor bu ne defaa yokku boor bu ne Sandiara yokku na ci côté boobu waaw ñeenti xible yi laa la wax de waaw ah yokku na foofu te lu fu fu fu yokku ay doom aadama yokku rek ndox def leen faa fekk doom war a fekk ah, kii courant it def leen fa war a fekk loolu moo tax normal bu am bu fa amee it bu yokk amee yokk yo bu ñu leen ko yokkalee it baax na waaw xam naa nag ñu nga jéem nag mais ñu comme ni xam nga am na du amul doole gouvernement bi moo moo koy mën a favoriser mu mën a jàll bu ko deful ah day taxaw day day def li mu man rek da ca des ñun ñu am ñu am ñuy des te loolu arrangé wu ñun daal bu nu sañoon bu nu amee daal wax dëgg jàll mu doy parce que li des dafa xaw a sakkan waaw.